waaw Tooxaa dafa nekk slogan boo xam ne ñëpp xam nañ li xew si réew mi mooy suñu moromu jeunes yi ñu bari àndatuñu ak seen sago ñëpp di daw di jël gaal gi léegi bi dawee jël gaal gi ñu indi slogan toog xaar boo gisee ni ñu baaree gaal gi nii mooy waxuñu nga toog rek xaar déedéet mën nga jël vol tey boo gisee yoon boo xam ne yenu na maanaam vol am say këyit dem Europe mais gaal gi la ñuy bañ moo tax ñu indi toog xaar ndax boo xoolee ñun ñëpp ay jeunes lañ fii la ñuy lal nangoo liggéey am jom fi ñu fi toog ñëpp ay liggéeykat lañ tey daw ñu jël gaal gi dañoo toog di xaar moo tax ñu lancé message boobu na bëgg kuy jeune nga ñëw jàppale ñu si loolu muy toog xaar bi ñu si lancé waat tamit euh, président comme président Macky Sall ak ministre bi nga xam ne mooy jeunes yi muy koy wax ne ñun yi waa toog xaar laay wax sax xale yu am jom lañ nangoo liggéey mais amuñu ay moyen mais ba tey gëm nañ yàlla toog fii si marché bi di ko fi xaar te gëm nañ ni fii la ñuy tekkee fii ñu toog di ko fi xaaree mais tey ndimbal rek lañ soxla ñun ku ñu dimbali dinañ toog xaar ko fi tekke ko fi ba pare ñi nga xam ni ñoo opté pour jaar si gaal dinañ leen dimbali ñoom bañ tekkee fii ñu ne loolu moo indi toog xaar bi. Euh, ndax bi ngeen ko yëkkatee. yëkkatee euh, lu tax mu gën a neex mais dañ ko yëkkati rek ñëpp apprécier si toog xaar vraiment kuy doomu Sénégal rek muy maire yeeg paa yeeg ñëpp a d' accord ñu dugg si gaal gi sax tamit jot nañoo dem ba ñëwaat sax dañoo d' si toog xaar bi dëgg yàlla. ndax yéen euh, da ngeen am maanaam association bi depuis kañ la judd exactement. non temps yi la rek mooy bi affaire gaal bi commencé. lañ toog suñu biir ñu waxtaan ak suñu grand zoo mooy ki si ginnaaw dañu waxtaan ñu ne pourquoi pas ñu xool suñuy xarit ndax ku ne am nga xarit boo xam dem na si gaal gi dee fa affaire yooyu ñu ne pourquoi waruñu mën a indi ñun toog xaar sensibiliser jeunes yi ba ñëpp toog xaar mais si biir toog xaar bi waxuñu rek ngeen toog xaar mais dangay dem daan sa doole liggéey Sénégal bu ko fi tekkee Europe nga bëgg dem mais jëlal vol nga paas am say këyit yu normal mais gaal gi ñun la ñuy tere moo tax ñu baare ko indi toog xaar Euh, euh, tey ji euh, est-ce que tey bu fekkoon amoon ngeen ndimbal tey par rapport bu jógee ci gouvernement bi lan en fait yéen lan ngeen bëgg mu doon. ca nga koy dimbali. da nga koy dimbali ca la muy yëngatu ñun ku ñu xam-xam yi ay ambulant lañ dóor nañ ñu fii si marché bi lalli nañ ñu tëj ñu fi police si marché bi ah suñu bagage lakk na fi def nañ mais ba tey dañoo fii di ko xaar loolu lañ gëm ni fii la ñuy teekee fii lañ koy xaar mais dañuy wax ministre bi rek nee na taal ni ko ñu ñu ngi lay taalal suñuy loxo ñun jeunes yi nga ñëw dimbali ñu jàppale ñu fii ñu toog fi ñu nekk fii bu ko fee xaaree daal bëgg nañ mu jàppale ñu fi daal si ay moyen am vraiment financement ak lu ne mais daal gëm lañ toog xaar bi ñun luñ gëm la waaw. ban message nga bëgg a lancer jeunes yi muy sa dernier mot. waaw di masalu masawu ñi nga xam ne aussi dañu dañu dem si gaal gi dee si gaal gi métti nañu trop parce que suñuy xarit lañ suñu moroom jeune lañ mais bu ñu sañoo lim bi fi mu yem foofu lay yem dootu ko passé ñu baare gaal gi kenn bañ a jëlati gaal nga xam ne kenn si si ñàkkati seen bakkan ñi nga xam ne jot nañoo dugg ñuy wax président mu bàyyi leen foofu jarul ñu leen indi nañ leen bàyyi foofu ñu liggéey daan seen doole toog xaar ko foofu parce que metti na nga jaar si gaal dem ba yegg aussi tamit ñu bëgg la indiwaat day nekkaat loo xam ne sax pression boo xam mën na leen sax dofloo kon dañuy ñaan ñi jot a dugg ñu bàyyi leen foofu ñi doon préparé pour dem ñu baare gaal gi bañ a jaarati si yoonu ndox mi daal